Jockey. président président vous êtes en direct au balcon. we get it. yes we get it. we get it we get it we get it. second time. oui. Absolutely. Yeah. Congratulations. <laughs> Congratulations. Thank you. ah, ah, ah. ah. Ouh, bravo, bravo, bravo. Bon, bon dites, dites, euh, dites, quelque chose au, <laughs> peuple sénégalais, votre premier message. Mon premier message est un message de félicitations à l'équipe nationale, bien sûr. Ouais. Il y a eu tellement de stress dans ce match. tellement. De... jaar naa ñu fekk leen fii tey nga si faar ngeen di supporté macha allah lii yaakaar naa leen rek moo ko mën muy drapeau Sénégal bala COPET muy lee ko xam ne suñu fierté la tey Sénégal di fubal amul Tidiane amul Murit amul Laayeen lépp benn la muy vert zone rouge tey ñu gis macha mu métti woon ñu dem fële si Égypte ñu dóor ñu 1-0 mu xaw a temps tuuti métti tey ñu war a ñëw fii tey wala la ñoom buñ buñ buñ buñ jugaloon un dañuy toog deux zéro duñu moo ñu arrangé ñu dem mo match bi zéro tey nan nga centré match bi ak lan nga yëgoon tey ngi ko doon doon seetaan ak pression parce que tey jii Égypte dañoo jóg jii li mhm. mhm. mhm. na ne jii amoon li gars am buñ demee coupe du monde ñu génn suñu poule avec première insha Allah dem ba final final loolu la ñaan indi coupe mhm. parce que suñu joueurs mën nañ ko mhm. suñu joueurs yi jii nii li am Afrique fii nii beneen ah équipe nationale bi am ko mhm. si fii si Afrique naan yàlla parce que yàlla moom moo na ko jox ñu sant yàlla di gërëm supporters yëpp parce que tey mobilisation am tey doole waaw am na doole gën ñaa am tey ji mobilisation boo demee stade tey sept heures yi matin laa fa dem jóge Thiès wàcc fa mais dama sant di gërëm zori di gërëm kusini mention spéciale naa fekk ko fi quoi. da mais sant nañ quoi sant. képp si dolli sant mais gis nañ ne match yow est ce que xalaatoon nga ay tiro bi. non moon tiro parce que tey dama yaakaar Égypte dina ñëw ñu dóor ko 3 da indi lii nii. équipe bi défendre 11 ak 11. waaw football lu dëgg la. football lu ñu quoi. ñu tëdd rek waaw 11 la quoi tey jii nii ñoom bu ñu taxee seen kaay mënoo si dara. ñoom naxante rek lañ doon def waaw mais tey jii nax nañ leen. Mhm. nax nañ bal rata ko naawal ko dóoru ko sax ci góol bi ko ci baara da koo naawal laal sax kan yi loolu lan nga la ñu ko ji waaw mais tey ji ji Salah hmm. dafa nekk premier jour Afrique bi boo ko wax moom moom moom Sadio Mané parce que dafa jël ballon d'or la nekk tey jii Sadio si bu may ko benn yoon muy dem di centre loolu muy fubat loolu moom day wàññi puissance bi ci ci biir terrain bi c'est comprendre mais tey jii Salah yi ñëpp a découragé parce que xalaatu ne woon tey jii jour mel ne Salah nga premier tiro bi waaw mais tey la coupe de la finale parce que ban demee Égypte dafa ku ne gis na tey nan fubale fubal nan ñu seen camp yi benn taxaw seen i camp yi itam loolu dama leen mais lépp dañ koy delloo si loxo yàlla xam ne yàlla moom moo na may ñu ngi koy sax di ñaan tamit affaire tamit gën a yokk waaw parce que aujourd'hui moom fi ñu jàpp nii bu ñu ko bàyyi tey jii sabali ngi ñëw gëj naa fa wala groupe bi mi ngi ñëw tey jii wane personnage boo xam ne tey jii doy na waar ndoko ndoko bu na saar saa luy siis lii da sa gaana gay waaw gars yi daal tey ñëpp a kontaan daal parce que tey jii lii final la comme final coupe d'Afrique tey vraiment grand la ba nga lépp macha allah tey wax nga ko ak maîtriser tey boo doon jox conseiller ñi nga xam ne ñoo nekk fédération ak ki xam ne mooy ministre des sports muy sama papa Matar Ba lan ngay sànni ci kàddu waaw xanaa tey jii nii bi tey jii nii li ma leen di ñaan mooy tey jii am nañ ay yeneen joueurs yoo xamante tey jii nii ñeneen ñi Camara mi ngi mi ngi mi ngi marché kerek bi mën naa ko fekkante ne leen convoqué mën ñëw dooleel groupe bi parce que tey jii tout le monde booy dem effectif bi lépp a yokk si ay trente mhm. jours da béy pétrole bi doon jaay mhm. te tey loolu mënul ñàkk si pays mhm. am na ñoo xam dañuy jënd di jaay parce que loolu mooy développé dëgg yaa ngi dégg mais tey jii fédération bépp boo xamante ni gars ñi nga critiqué si ñoom da xam ne tey jii ñun ñoom li ñu bëgg ñoom loolu lañ bëgg mooy gagné Sénégal jëm kanam tey jii ne nan xam ne ñun asi foot Sénégal Sénégal moo tax des fois ñu wax tàng xool mais ay xale lañ suñu doom lan mais lépp ñu ñoo ko bokk Sénégal benn caaya la waaw kër mënu ko xam waaw mais jour yi maa leen encouragé bu baax a baax on est fier d'être sénégalais mhm. billaahi Sénégal tey jii fii li fi am la victoire Sénégal il est tout fii di Nord Ouest Foire Ouest Foire en face bi doon fi ngeen jëndee billets yi dégg nga fi ngeen ñëw instant yi di jubile ngeen jëndee billets yi. dem nañ ñibbi fi ngeen toog dafa xaw a sori mel ni nawetaan dégg nga ne commentaire dem nañ ñibbi dem nañ ñibbi fi ngeen toog dafa xaw a sori dégg nga li supporter yi wax dem nañ ñibbi dem nañ ñibbi fi ngeen toog xaw a nga xam ne mooy Mohamed Salah dafa raadu ak nga xam ne mooy penalty am li nga xam mooy yaakaar naa mooy ndeysaan man toppee tey dama damaa sonn damaa jógee ci wàllu xam ne mooy euh, Gambia moo tax damaa dama artiste sama wàllu fekk sama moo doon joué Gambia topp gars daw mais gis nga macha allah gars yi fi ma toppee damay sonn gis nga fii ci Ouest Foire fii lañ doon jëndee billet yi macha allah boo fi jaaroon day xat ñu fay jël mais lii lañ bëggoon tey képp ku doon sonn ngir lool rek ñu nga bëggoon tey macha allah yàlla may leen kon sant yàlla bu baax a baax di béggee mooy loolu dafa lu la neex dafa lu la neex lu la saf <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan gaa yaa ngi noonu ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñu ngi noonu ci ba eh, eh, ñu ngi noonu oh sama téléphone bi téléphone bi jàpp ci rek ndox mi mais quand même quand même quand même ndeysaan allah ziar nañ la ziar nañ la ziar nañ la ndeysaan dégguma sax daa kontaan daa kontaan daa kontaan daa kontaan daa kontaan ndeysaan daa kontaan daa ah mais comme ni wax rek vers 72 mais comment ziar nañ la kaay ziar la <laughs> non garaawul dafa kontaan bàyyi ko comment kaay kaay oh, oh ndeysaan dafa kontaan dafa kontaan c'est Sénégal <laughs> c'est le Sénégal mes frères gis nañ ne allah mbégte nga àndal lii nga doon ñaan yàlla tey nan nga bi bi mu tolloo ci bi ak ah, nan lan nga sant lool. lépp kuul na lépp kuul na lépp kuul na mënoo wax lépp kuul na ndeysaan nee na mënul wax dafa am émission lépp kuul na macha allah xale yaa ngi noonu teel a jël mburu macha allah pour teel a reer yi te tey Sadio Mané da la bégloo tey macha allah tey jël nañ mburu teel a reer yi duñ tey tey Wally Ballago Seck maa lay ñaan man Idali sa frère sa lépp maa lay ñaan tey nga woote Vogue wala fi xam ne mooy Paramount ah, Wally Ballago Seck fête laa bëgg te spécial man Italie maa la koy lancé li nga def Gambie macha allah sonn nga mais maa ngi lancé te spécial tey nga woote baara mu ni gratuit def la abi bi Lamine Euro defal abi bu gaaw Ndiaga Euro ménageur de tous les temps ménageur de tous les temps defal affiche léegi léegi woote fi nga xam ne mooy baaramu ni wala boog tey ñu feeteel li nga xam ne mooy ah coupe bi de astafurlaay dama dama kontaan waa amin amin amin du monde bientôt ne mooy tey victoire bi ak Lions yi tey. ah Vogue wala Baara Muni Wally Seck maa ne message di la wax loolu sama frère l'homme de tous les temps le centre du peuple le soir du peuple le golden boy de la musique tey macha allah jig ñu ku ñu jig tey Vogue urgent Ndiaye Euro moom ménagère de tous les sama grand wooteel ndeysaan sama ji mu ngi doon ndox mi toog dafa sama yaay waxoon na lii sama yaay sama yaay euh, soxna soxna Aïda Veyante waxoon nga lii de ndox mi day sedd rek buy sedd incha allah macha allah yaakaar naa na moo tax gars sarax sama waa ba léegi mu sarax yi allah mais Karamba kenn du Karamba macha allah am na lu ma waxoon ne benn bi dinaa dinaa def benn bi incha allah euh, ci kattan yàlla te incha allah damay jàppale Lions yi kon Karamba yaakaar na am nga ndam soxna Awa voyante sama yaay mu Serigne Saliou doomu yaay Wally Ballago Seck yaay Idali macha allah am nga ndam itam macha allah gis nga macha allah ndox mi am macha allah gis Karamba maa ngi doon déglu te lépp macha allah li nga waxoon yëpp def nga te dañ la laaj ne ñaar la ngay fay nga ne non non bëgguma xaalis man Sénégal la kon Karamba victoire bi sa victoire la mi ñu Sénégal Karamba yëfu lii Karamba ko am Karamba kon dafa mel ni gars yi ñoo xam dëgg te lépp mu ngi noonu ndox maa ngi nii gars yi di wis jënd ko Karamba le merci de Djiné Karamba le merci de Djiné victoire ko victoire tudd naa ko Karamba ak Faramaren sama téléphone mu ngi yàqu de mu ngi yàqu de bu yàqoo Karamba ak Waly Seck na ma ko oh, oh, oh. xëpp nañ ma ndox Karamba sama téléphone mu ngi ndox de bu yàqoo de ah Karamba gi ne ndox mi ndox kese ndox rek ndox dong ndox kese Karamba laa ko man mu ngi nii tey gis nañ nga génn def démb def sorti macha allah li nga waxoon yëpp loolu la demee barke sëñ Bamba gaa ni sot ndox mi kon Karamba ndox kese ndox dong victoire ma la ko tuddee di ko tuddee sama yaay euh, soxna na soxna yaay Wally Ballago Seck laa ko tuddee tey victoire bi macha allah gis nañ sorti bi nga def yàq euh, Karamba macha allah kon tey yaakaar naa victoire bi yéen ko tuddee ndox kese ndox dong karamba li réew la ndox kese ndox dong moom ngeen waxoon macha allah karamba li nga waxoon euh, jam ñaar yaa koy yaa koy yaa koy yaa koy unigré benn am na mais di nga jàpp incha bañ gañe gañe ngeen jëgoon macha allah gis nga macha allah fii kon Waly maa lay ñaan tey njagoro ngeen urgent ngeen def affiche tey jam ñaajo karamba ah tey macha allah jam ñaajo li nga wax ne karamba gis nañ ko karamba le métier de Guinée macha allah soxna Awa Fall sama am na tey macha allah Wally Ballago Seck maa lay ñaan ngeen def message léegi ngeen léegi léegi léegi def benn fête fële ca Baramani wala bokk incha allah ah mais lii dañ amoon tey macha allah fii ci wetu faar gis nga dama jógee Gambie tey ñëw sonn gaan mais mooy loolu macha allah victoire nag maa koy may kan a ah Karamba sama xarit boobu faramaran bi macha allah borom mbuur ak sama yaay soxna aw Fall voyante yaay Wally Ballago Seck yaay Idali maa la koy may yooyu tam macha allah gis lépp seraan lépp macha allah li ngeen waxoon yëpp macha allah yàlla antul na ko Karamba kenn du yow barke Sëriñ Bamba mais foog ñu def ay fekk ñu fekk ñu feete nag balaa li may dem ñu feete Wally Seck yow loolu loolu yaa jox Wally Ballago Seck Ndiaga Euro defal affiche gaaw léegi léegi léegi tey tey tey tey sonnuñu ñun avec Wally Ballago Seck ak Sénégal duñ sonn feeg Wally ngi dund macha Allah duñ li ñu am duñ sonn Sénégal waaw waaw defal lu la neex barke Sëriñ Bamba ba léegi rek ndeysaan ba léegi rek gaa yi ngi ci bote duñu bàyyi amul baay de ala aju ala aju amul baay ala aju ndeysaan ah? mooy baayam Sadio mooy baay gan. Salah Salah dara de du dara Sadio mooy baayam dégg la mer ne Sadio mooy baayam barke Serigne Bamba ah Sadio mooy baayam c'est le Sénégal mais Salah du dara Salah du dara Sadio mooy. nga ne Sadio. mooy baayu Mohamed Salah. ndeysaan Sadio Mané mooy baayam Sadio Mané mooy sa baay. wan na ko ne maay sa baay. eh wan na ko ko tey. dëgg la na dëkkam mu door bi uh-huh. moom mu raté. Uh-huh. Sadio Mané mooy sa baay. dëgg la ndeysaan neexul ba neexul mooy sa baay. dëgg la ndeysaan mooy sa baay dégg nga lu maire bi wax Sadio Mané mooy sa baay. Salah Salah Sadio mooy sa baay moo. waaw waaw vegan nay supporter ah la fourmilière correct ak laser yi atum laser yi atum laser yi ma jënd laser deux cent cinquante mille ñëpp seen bay Sadio Mané yaa wóor Sadio ndeyam la waaw ndeysaan waaw waaw maa ngi fii c'est le maire génn nday gor dëgg la fii daf ñooy noonu gars yi ba léegi bàyyi guñ noonu ndeysaan waaw waaw ndeysaan c'est le maire grand dëgg la ba mbajee ba muy ba muy dem rek laa ne kulli aali da koy door mhm. ndax bawal bawal la te bawal bawal day am jom ndeysaan ñoo bokk cité ouvrier dëgg la waaw dëgg la dëgg la nañ la. jël sama numéro ma jox la jaar nañ la dama bëgg a jël tur bi pare interview tuuti rek. waaw ayca. Fer jaar nañ la baax a baax. jaajëf ñu ngi lan nga gisee tey match bi tey uh-huh. uh-huh. uh-huh. ay góor nañ ko seqaloon dimbali nañ ñu. Bamba kontaan nañ jaajëf. jaajëf jël sama numéro